Euh, euh, bokk ak euh, mbokk journaliste yi li nga xamante ni moom la ñuy indi lu bees ci ci at bi nii mooy at bi ñuy woowee ñun suñu suñu cycle liggéey atu li ñuy woowee rentre des programmes donc euh, lu lu bees lépp lu ñuy indi ci euh, ci ci programme yi tàmbalee ko ci euh, tàmbalee ko ci li ñuy indi ci suñu yëf suñu yëf nga xam ne mooy chaîne bi nga xamante ni moom la moom la sénégalais yi bëgg ñi ci seetaan ay série yu bari mu am série yu bees yu nga xamante ni dañ koy indi benn série bu bees bu tudd la grande du pouvoir bu war a tàmbalee ci ci weeru weeru octobre bi beneen pàcc bi mu nekk juste ci wàllu sport wàllu football nga xamante ni que euh, euh, championnat yi ñu leen doon proposé daaw yëpp dañ leen koy proposé waat muy les cinq grands championnats ak Champions League bi waaye ren dañ ciy dolli beneen championnat muy championnat Arabie Saoudite championnat Arabie Saoudite bi nag boo gisee ñu ñu yokk ko ci c'est parce que dafa am suñu star Sénégal yu nga xamante ni yu bëri dañ fa dem Euh, ñoom Sadio Mané ñoom li Koulibaly Edouard ni ñoom ñëpp ñu ngi foofu ñu continuer di permettre sénégalais ñu mën leen di suivre di seetaan seen ay match di xam ci lu ñu nekk euh, ak ak ak loolu mu nekk lu nga xamante ni lu lu lu ñëpp loon laaj la euh, ñu ñu ñu indi ko donc loolu mooy mooy nouveauté bi ci wàllu ci wàllu ci wàllu sport beneen bi ci topp muy xale yi xale yi fàttewuñu leen ndaxte ñu ngi indiwaat indiwaat programme bu bees ci Natan Plus Natan Plus comme ni ñu ko xamee muy chaîne boo xam ne day jàppale xale yi ci njàng mi Euh, xale yi nekk ci primaire essentiellement mu jàppale leen ci njàng mi mais liñ ci dolli ren mooy dañ ci dugal njàngu mag yi mooy mag ñu nga xamante ni jotuñoo dem école euh, li ñuy wax alphabétisé wuñu donc mënuñoo lire mënuñoo mënuñoo wax ci ci ci ci tubaab mais ñu bugg leen jàppale ak euh, ak programme yooyu pour ñu mën a pour ñu mën a jàng lire jàng jàng jàng jàng jàng bind ci ci ci ci ci tubaab Euh, beneen bi ci topp ci loolu mooy que ni euh, euh, ñu ci xale yi ba tey ñu wax ci li nga xamante ni mooy contrôle parental muy lu nga xamante ni que Canal Plus daf ko def ba nga xamante ni que waajur bu nekk lii am sa kër yow yaa koy téyel sa bopp. li ngi fay wane li génn ci télé bi ak li codul génn yow yaa koy décider sa bopp ndaxte Canal Plus daf lay permettre nga mën a bloquer ay chaînes ubbi ay chaine yi nga ubbi ko yi nga tëj ko yow yaay taamu lu la neex rek ci sa biir kër moo fay am léegi loolu mu nekk lu nga xamante ni dañ koy jox. parent yi waajur yi ñoom nga xamante ni que ñoom ñoo am dogal ñoom ñoo am sañ-sañ seen biir kër lu leen neex moo fay moo fay jàll lu leen neexul du fa jàll ñu am jox leen li nga xamante ni moo leen permettre ñu mën koo ñu mën koo def que mu nekk ci décodeur bi wala mu nekk ci application bi My bi ñaar yëpp mën nañ ko def donc parents yi ñu ñu ñu leen di juste dellu di leen fàttaliwaat ni que loolu noonu lu am la ci décodeur yi ngeen am yëpp euh, euh, ku mu si neex mën nga xool la naqari ci tele bi loo xamante ni buggoo say njaboot seetaan ko nga bloqué ko Euh, loolu ci yéen la dépendre dañ leen jox nañ leen outil bi ku nekk yaay xool li nga li nga li nga bëgg a ak li nga bëggul bloqué euh, comme ça euh, ñëpp mën a mën a nekk si jàmm xale yi itam mën a seetaan yéen ngeen mën a nekk tranquille en fait ci ci li ñuy seetaan lépp waaw Access Plus bi dafa nekk formule boo xam ne day ñëw tontu ci ci ci benn benn laaj boo xamante ni que suñu abonné yi dañu ko doo dañu ko mos a mos laaj naan ñu bon su ma jëlee Access du ma mën a seetaan football su ma jëlee essentiel plus madame du mën a seetaan novelas ñu mujjee jël ñaar yooyu yëpp boole leen euh, ci benn formule mu nekk formule bu tudd Access Plus nga xamante ni day regrouper li njaboot gi lépp soxla li papas yi soxla li yaay ji soxla li xale yi soxla lépp ngi ci biir euh, ba nga xamante ni que dootul dootul soxla ngay tànn euh, parce que sama waa ji daf ma doon naan que ni day indi problème ci famille yi parce que boo bëggee seetaan match ba madame boo abonné bii madame du mën seetaan novelas te soo abonné novelas bi madame du yow doo mën seetaan football waaye formule bii nag day ñëw régler problème yooyu yëpp. boole boole boole boole li ñëpp soxla ci njaboot gi yëpp mu boole ko ci benn formule mu tudd Access Plus. waaw incha allah Coupe d'Afrique bi Canal dina ko dina ko wane euh, donc euh, xam naa ni dina ñëwaat ci lu gën a yaatu. Euh, ñëwaat ci li ñuy wane ak euh, lan lañ war a euh, nan la ñuy taxawoo Coupe d'Afrique bi dispositif bu ñuy mettre en place parce que Coupe d'Afrique defe naa ne naka lañ koy waxee Coupe d'Afrique bi yelloo na ñu amal ko conférence su presse boppam nga xamante ni Coupe d'Afrique kese lañuy wax ndaxte li ci aju yëpp moo bari ak engouement bi muy bi muy généré surtout ñun nga xamante ni dañu war a dem défendre suñu titre donc y yaa y beaucoup de choses à dire donc donc waaw Coupe d'Afrique bi moom incha allah si canal lay doon.